bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa hmm. ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim hmm. alxadiisu raabi'a ashar hmm. fukkeelu xadiis ak ñeent an ibni mas'uudin eh, jëlee nañ ci sayidina ibni mas'uud nu mu tudd nu mu tudd ibnu Mas'ud ibnu Mas'ud ah. Abdullah Abdullah ibnu Mas'ud mm-hmm. taala anhu mm-hmm. bokk ci ñi ñuy tudde al abadilatu mm-hmm. jamoo abdullahi abdullahi yi gën a siiw ci lislaam kii nag moo ci njëkk a ci abdullahi yooyu bokk ci saxaaba yonent yu gën a mët wax nañ mbiram ca gannaaw qaala mu ne qaala rasulullahi yonentu salallahu alayhi wa sallam wax na ne hmm. laa yaxillu hmm. du dagan hmm. dam damum ri'in deretus cam muslimin kuy jullit illa bi ixda thalath ndare ci benn ci ñett yi mm. jullit mm. tuur deretam du mm. dagan lu dul benn ci ñett mm-hmm. am mm-hmm. bu njëkk ba athayibu zaani jeeg bu njaaloo jeeg fii nag làmboo góor làmboo na jigéen mm-hmm. Mm-hmm. moo tax mu jigéen mu góor a zaani mm-hmm. athayibu mm-hmm. mooy ku euh, songe ku sangewu bu ne jéeg mooy ku mos a sëy wala ku xam góor bu dee sax tas na waaye arab bu ne athayibu zaani ñi ci jublu ki am jabar njaalo mm-hmm. mbaa ki am jëkkër mm-hmm. njaalo mm-hmm. nafsu ak bakkan bi nafsi ci bakkan ku rey sa tayu ko ñu ko wa taariku ak aji ba li diini yi al mufaariqu kay aji taqali ko lil jamaati mbooloo mi rawaahul buxaariyu wa muslim yenn ci riwaaye yokk na ci laa yaxillu damu mriin muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ixda thalath deret du dagan mm. deretu cam mm. soo xam ne ab judit la mm. kook seede ne yàlla rekk a yàlla te man maay ndawam lu dul benn ci ñett situation yi kon boobaa yashhadu an laa ilaaha illallaah dafay fiiri rek muslim naka noonu wax ji mu wax almufaariqu li jamaa dafay fiiri attaariku li diini ñii daal yàqu sunnaay yonantu sallallahu alayhi wa hmm. Hmm. ne hmm. mën nañ leen a ndax dafa am juróomi yëf yu sacré ci lislaam bu njëkk ba mooy diine ku nekk war ngaa diine woo diine ji yàlla bëgg nga diine woo ko ñaareel ba mooy bakkan hmm. sa bakkan bi joxula ko sa bopp hmm. sañoo koo jël hmm. sañoo koo sànq wala tulqu bi aydikum ila tahlukati ak wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima sañoo rey sa bakkan sakkaa bakkanu keneen kon bakkan mooy ñaareelu yëf bi gën a sàkkare ci juróom yi ñetteel ba mooy am xel sañoo yàq sam xel sañoo yàq xelum jaambur moo tax lépp lu yàqum xel ñu araamal ko mel ni sàngaraak dorog ak yàmbaak yooyu nga xam ne dafa demee xel araam na jëfandikoo araam na jox ko keneen mu jëfandikoo ko lépp lu xel dana ca yàqoo rek hmm. mënoo def hmm. ngir ne xel mi dees la dénk hmm. te mooy manaasu taklif mooy manaatu taklif wa kullu taklifin bi charti l aqli maa albuluuqi bi damin aw xamli aw bi maniyin aw bi imbaati shacar aw bi thamaani ashratin xawla allah charte yooyu yooyu yëpp mu indi ne mooy tax nit nekk mukallaf lañ ci jiital mooy xel mm-hmm. ku amul xel moom mm-hmm. nga am fukki at nga mm-hmm. mat jigéen nga sax karaw nga nangam yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne yëgati nañ xalima ci sama xeet ci ñett ñii yëgati nañ xalima ci ñett ñii mu tudd ca ki dof ba ba muy wér kon am xel dafa bokk ci juróom yi gën a sell juróom yu gën a sacré yu ñu war a sàmm hmm. ci lislaam hmm. ñeenteel ba hmm. mooy ab mooy der doomu aadama sañta yàq daram sañta yàq deru jàmbur tey jii soo duggoon ci baar bi ñuy jaayee ñollu jënduloo fa lu dul boisson gazeuse walla am ndox waaye nit ñi lay seen dafay duggoo danañ jàpp ne yow mi sàngara nga fay naan hmm. yaa ngi yàq sa der hmm. bu ko defee der boobu sa ñi ñu lay tudd hmm. da la ca wàccee yàlla gërëmut ko yàq gi nga yàq sa deret yaa ngi ciy tooñaale ñi la bëgg yaa ngi ciy tooñaale surtout ñi la jege muy jabar ak i mbokk ak i doom ndax luñ la teg mu métti ci ñoom naka noonu it hmm. sañuloo jël dara hmm. ci lu ñaaw nga teg ko ci deru keneen hmm. yonentu sallallahu alayhi wa seen deret yi ak seen der yi xaraam na ni ki xaraam bés bu tey bii xaraamee dëkk bii xaraamee weer wi xaraamee bésu Arafa ñim sàkkaree bés ca topp mm. makka ni mu sàkkaree mm. weeru aj ni mu sellee mm. la deretu ak deru jàmbur sàkkaree noonu la sellee ndax yonentu wax na ne riba ba buñ ko doon hiérarchise ni mu garaawee bàkkaaru riba ba ca gën a suufee mm. ne mi ngi tolloog nit ku tëdd ak ndeyam ci njaaloo mm. nit yàlla mm. loolu ni mu ñaawee ci dégg ñaaw ci gis ñaaw sax ci xel ñaaw ci côté bu ne mu ne waaye boo ko comparé ba ca gën a kawe boo comparé yeneen bàkkaar yi da nga foog fekk ne am na yu ko gën a kawe ba ca kaw nag mu ne mooy ruur toolu dar toolu gor maanaam yàq deru jaam mm-hmm. ndax nit ki boo yàqee deram mm-hmm. rey nga ko mm-hmm. am na loo xam ne soo ko waxee ci nit ku ko gisati rek wax jooja lay xalaat moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi mooy alal alal dafa sacré bopp sañoo koo yàq sàkka alali jàmbur lépp loo xam ne lu dagan nga sañ nga ca soppat sa alal bu nag sañoo caa soppat ci lu dagan sàkka ci lu xaraam mm-hmm. lu xaraam mun ko soppat ci sa alal mm-hmm. mun ko soppat ci alalu jàmbur lu dagan mun ko soppat ci alalu jàmbur lu dul mm-hmm. ci xaq lu dul ci dëkk mu jox la ko ci teewu bakkan ngeen jaayante jëndante wala mu am lum def yoon fayloo ko jël alalam jox la ko loolu ci xaq la juróom yii lañ wax ne ñooy alkulliyaatul xams am na ñu ca yokk juróom benneel ne mooy al naslu mm-hmm. naslu mooy ngirte mm-hmm. mooy njaboot waaye mm. loolu it naa dugg dugg ci nafsu rek mm, mm, mën naa dugg ci nafsu juróom yii boo xoolee lislaam yëpp ci lay wëndeelu diine bakkan muy dund xel der ak xalal moo tax seen sacralité du dañ mukk mm-hmm. lu dul benn ci ñett am mm-hmm. walla lenn ci seen sacralité mm-hmm. du dañ mukk lu dul benn ci ñett yi yonentu sallallahu tudd am bu njëkk ba mooy ki nga xam ne dafa njaaloo te fekk sonné wu na ak tayib aw zani góor ak jigéen ñi mm-hmm. nga xamee ne jullit yi dëppoo nañ mm-hmm. ne àtteeb ku njaaloo te sangew mm-hmm. mooy jam ànd ak charte yooyu ci tudd nag ci buntu fiq bi charte ya nag jafe na mm-hmm. xam naa ba ca gën a yomb mooy iqraar mm-hmm. ki saxal mm-hmm. am na sax ñu ko weddi ngir ne laaya ja ca suuratu nuur moom caw rek la wax te ràññalewut ku ku sangewut waaye jàng nañ ci sunna nag ne yonentu jam na abubakar jam na omar jam na te topp sunna alxuraan moo ñu ko digal mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. topp sunna alxuraan moo ñu ko digal wa ma ataakum rasulu fa xulu wa ma nahaakum anhu fantahu wa in tutiicuuhu su ngeen ko toppee tax da doo ngeen jub wa ma mhm. arsalna mosu ñoo yónni min rasulin ndaw mhm. illaa li yutaa ludul pour ñu topp ko mhm. bi idnillahi ci ndigal yàlla qul in kuntum tuhibbuna allaha waxal yow muhammad ne su ngeen bëggee yàlla dëgg fattabiuni mi ngi leeree ci ngeen topp ma yuhbibkum allah yàlla bëgg leen wa yaxfir lakum dunubakum te baal leen bàkkaar seen ba laaya ja jeexee mu ne qul atiu llaha war rasula hmm. hmm. topp leen yàlla ak ndawam hmm. fa in tawallaw fa inna allaha laa yuhibbul kaafirin mu mel ni kon ku topp yonantu da ngay dugg ca kufru laa yuhibbul kaafirin ñaareel ba mooy an nafsu bi nafsi ndax yàlla moo ne wa katabna alayhim fiha anna nafsa bi nafsi wa katabna alayhim fiha anna nafsa nafsi borom xam-xam yi nag ñii nee nañu bu fekkee ne ki rey jullit la kam rey yéeféer la duñu rey jullit ci yéeféer ngir xadis ya am nañu ne sax gor dañ ko cay sartaal bu fekkee gor la mu rey gor Malik wax loolu la Shaafi wax loolu Ahmad mm-hmm. waaye asxaabu ra'yi moom mm-hmm. Abu Xanifa te mm-hmm. nee jullit bu reyee yéeféer boo xam ne ñu ngeeg ñu ngeeg jàmm ñu ngeeg kóllëre ak moom nekkuñ ci moom nekkuñ ñoo moom ci xare jullit boobu dañ koy rey ndax yàlla ana nafsa bi nafsi wax bu fekkee ne gor dafa reyub jaam ñoom nee nañ dañ koy rey ndax ànd na nafsa bi nafsi la mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. donte jumhur wutee nañu ak ñoom waaye seen wax ji mën naa bàyyi xel ki nga xam ne nag moom mi ngi ci xare ak jullit yi kooku moom rey ko du tax ñu rey ab jullit ndax ci loolu yoonu rey jullit yi ci la ne moom waaye koo xam ne muahad la hmm. yonent nee na képp ku jullit yi am ak kóllëre ku ko hmm. rey hmm. yow aljanna du la xëy te xetuk aljanna mu ne danañ ko jot ci distance nangam ak nangam maanaam da nga nekk bu sori odóor bu neexu aljanna di la xëy xam nga aljanna moo odóor boo kum xëñu doo fa dugg fa insha allah boole musal rawatina nag ku rey jullit nee na moom borom bi wa man yaqtul muminan mutaammidan hmm. fa jazaauhu jahannamu hmm. xaalidan fiha hmm. wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aadda lahu azaban azim tëkku yi gën a métti la ko tëkku ku reyu jullita tayu ko bu njëkk mu ne fa jazaauhu jahannam faya mooy jahannam xaalidan fiha Mm-hmm. dafay bér mm-hmm. wa gadiba allahu alayhi mm-hmm. yàlla sànji na ko wa rëbb ko teg ci wa aadda lahu adaban azima tam préparé ko mbugal mu mag mu mel ni sax mbugal mu mag moom dafa ëppati jahannama ndax jahannama la njëkk a tudd yàlla moo ëpp jahannama rëbbam yàlla moo gën a moo ëpp jahannama mu tegal ne moo xadool ko nag mbugal mu réy réy am ci yàlla boole Mm-hmm. alxadiisul xaamisa ashar mm-hmm. fukkeelu xadiis ak juróom mm-hmm. nee na an abi hurayrata jëlee nañ ci seydna abu hurayra radiallahu taala anhu anna rasulallahi naka yonentu yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na man kaana yuminu billahi wal yawmil axir mm-hmm. ku gëm yàlla ak dikkub bés bay aji mujj mm. te mooy bés penc mm. fa yaqul na wax xayran mbaax mm-hmm. aw li yasmut mm-hmm. te noppi wa man kaana ku gëm mm. wa man kaana ku nekk yuminu di gëm billaahi yàlla wal yawmil axir ak dikkub bés bay aji mujj fali yukrim na teral jaarahoo dëkkandoor wa man kaana ku nekk yuminu du gëm billaahi yàlla wal yawmil aaxiri ak dikku bés ba yaaji mujj kii bés penc fal yukrim na teral dayfahu ganam rawaahu albuxaariyu wa muslim ku gëm yàlla gëm gu wér góog dana musale ci mbugalam yàlla mm-hmm. jotale ci mm-hmm. ngërmande yàlla mm-hmm. na wax yiw te noppi maanaam ku gëm yàlla dëgg dafay ragal aw tëkkoom yaakaar yoonam fatlu ci lépp lum digle bàyyi lépp lum tere te li gën a yiteewu ci yooyu mooy wattu cër cër yi nga xam ne luñ bëgg a def ñooñu koy defal buur ne inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masuula dégg ak bët maanaam ak gis ak xol mbaa xel yépp dañ la laaj mm-hmm. lan ca def mm-hmm. yow mm-hmm. doomu aadama buur ne maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid doomu aadama bi du génne benn kàddu lu dul ne raqiba raqib atid ñu ne malaakam mi koy fuglu la ñi mm. ne déedéet raqib mm. malaakam boppam la atiid malaakam boppam la mm. ñu ne raqib moo ne ci ndeyjooram di bindi mbaaxam atiid nekk ci càmmoñam di bindi safaanam mm-hmm. mm-hmm. cër yi ñu war a wattu yépp nag làmmiñe ci raw mm-hmm. moo tax yonentu jagleel ko tudd fi man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran yonentu wax na ne ndax am na lu mën a yóbbu nit ñi safara hmm. lu mel ni wala lu dul hmm. ngóobitu seeni làmmiñ hmm. wa hal yakubu nnaasa fi nnaari ala manaxirihim illa xasaidu alsinatihim ci xadi ci xadisu Muaaz ja mu koy dénk di ko wax yu baax ci julli di ko wax yu baax ci woor di ko wax yu baax ci xeeti jaamu yàlla yëpp ba mu nag mu ne ko ndax ma wax la li dajale yi yëpp hmm. mu ne ko waaw hmm. te làmmiñ mi ne ko wëttul kii hmm. mu ne ko ah, ndax li ñuy wax dañ koy jàppe yow yonant mu ne ndax am na lu mën a yóbbu nit ñi safara lu mel ni lu lu dul seen ngóobitu làmmiñ amul dara lu mën a këpp nit ñi seen kanam di leen diri yóbbu leen safara lu mel ni làmmiñ moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ne lépp lu doomu aadama wax rek dana retourner contour ko lu dul tudd yàlla lu dul digle mbaax lu dul tere mbon xam nga ku xam loolu dëgg dëgg xam gëm ko dëgg dëgg gëm rawatu làmmiñam ba du wax lu dul yiw hmm. te noppi wala du wax lu dul yiw hmm. mbaa noppi hmm. wala yaqul xayran aw li yasmut te noppi wala aw li yasmut mbaa mu noppi doon nañ ci njëlbeenu téere bi ne borom xam-xam wax nañ ni mboolee yiw ak i teggin ñu ngi génnee ci ñeenti xadis xaddis yi waxoon boole woon nañ ci biir mm-hmm. man kaana yuminu billahi wal yawmil axir mm-hmm. fal yaqul xayran mm-hmm. wala yasut maanaam doomu aadama su bëggee wax na xalaat li mu bëgg a wax ndax yiw la su ko leeree ne yiw la mu wax su ko leeree ne du yiw mu noppi su ko leeree ne lu xaraam la mu noppi ko leeree ne luñ sib la mu noppi hmm. ko leeree ne lu dagan la hmm. na seet hmm. ndax lu daggan la wax koo gën walla gënut su gënee mu wax su gënut mu bax man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri wal yaqul xayran aw liyasmut gannaaw lépp lañu wax dañ koy bind xamuñ ci ban registre lañ koy bindoo mm-hmm. yor nañ seetantal mm-hmm. borom xam-xam yi ne mm-hmm. ndax lépp lu mu wax lu dagan ak lu xaraam ak luñ sib ak lu ñuy santaane yépp lañuy ñuy bind wala li ñuy fay mbaa ñu cay mbugal rek la ñuy bind wutee nañ am na ñu ne lépp la bind ndax moo xam sax lu dagan la am na ñu ne déedéet liñ koy bindal mooy li nga xam ne rek danañ ko ca fay yiw mbaa ñu mbugal ko ca mm-hmm. loolu la Seydina Abdoulaye Abbas wax mm-hmm. bu ko defee kon aaya ja mm-hmm. dañ koy taxsis woon maa yalfidu min qawlin ay yatarattabu alayhi jazaun min thawaabin aw iqaabin wa man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal lu ci topp fal yukrim jaarahu ku gëm yàlla dikkub bés penc yi mm-hmm. mooy gëm nga yàlla non seulement gëm nga ko waaye gëm nga ne mm-hmm. bés a ngi ñëw mu taxawal la ci kanamam mm-hmm. seet li nga def fal yukrim na teral jaarahu euh, dëkkandooram wa man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim na teral dayfahu ganam mi ngi wane fii xaq ju rëy mm-hmm. ju dëkkandoor am mm-hmm. ak xaqi gan mm-hmm. Hmm? yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax na ne jibril dañut di ma dénk dëkkandoor ba ma foog ne dana ñëw bés ne ma soo dee dana la doon ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ndax dax xàqu dëkkandoor ganale nag ci lislaam la bokk bokk na ci jikko yi gëna a mag ci jikko yonent yi ak ñu baax ñi am na sax ci ñooñ boroom xam-xam ñu ne dafa war li ëpp ci boroomi xam-xam nag nee nañu min makaarimil axlaq ba mm-hmm. bokk ci wayte di jikko mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne mm-hmm. dañ maa yónni ngir ma matal ma mottali jikko yu baax yi innama bu'istu li utammima makaarimal axlaq wax na sax ne diine mooy rafet jikko borom xam-xam yi ne ku la gën jikko gën la diine mm-hmm. sufiyanke yi ne ku la gën jikko gën la nekk sufiyanke mm-hmm. ñii ne teral gën mm-hmm. farata la ñii ne ah teral gën du farata gaa waaye bokk na ci sunna yonent yi nga xam ne ci way tedd jikko la waaye daal kii teral gën na xam ne ci jaamu yàlla la nekk Mm-hmm. bu fekkee teral gan jaamu yàlla la nag mm-hmm. bul doo yëgati coono ba mm-hmm. ki nga jàkkaarloo jéggi ko gis ki ko fi indi te digal la nga teral ko muy yàlla gis ki ko fi indi te digal la nga teral te ak ki mu wax ki mu yónni ci yow wax la ne nga teral ko yonantu bu fekkee teral gan jaamu yàlla la duñ ca xàmmee ku ñu ëppale mm-hmm. mbaa ku ñu ëppale ñun mm-hmm. bu fekkee ne nit ki milliardaire la sax njëkk sama kër su mm-hmm. ah kii de mën naa teral boppam déedéet man gisuma gisatuma la ma am maa ngay gis rek jaamu yàlla gi ma yàlla sant yenentu sant ma naka noonu faqir wala rawatina sax ak faqir teral nag duwul alal rek muuñ nga ngay muuñ ci kanamam mu yëg ne hmm. nekkut tumuranke ci kër gi hmm. ak waxtaan wu teey wu rafet wi nga koy waxtaanal ba du namm fam jógee hmm. walla du yëg ne tumuranke la loolu mooy njëlbeenu teral ubbeeku kanam wax ju teey jox ko mu lekk jox ko mu naan def ko ba mu yëg ne këram la ne Hmm? loolu mooy teral hmm. gën kon nag wax yiw hmm. ak teral dëkkandoor gi nga xam ne sama borom digle na ko ak catégorie dëkkandoor yi niñ toll dëkkandoor goo xam ne nag wal jaari dil qurba wal jaaril junubi wa sahibi bil jënd dëkkandoor am na boo xam ne yéen a bokk deret bokk diine mm-hmm. bokk fu ngeen dëkk mm-hmm. ñetti xaq yëpp mu am ko ci yow mm-hmm. am koo xam ne yéen a bokk deret bokk fu ngeen dëkk fu ngeen sax bokk diine mu am ñaari xaq am koo xam ne yéen bokk fu ngeen dëkk waaye bokk leen deret bokk leen diine am na xaqi dëkkandoor ci yow ba ci li ngay togg sax bu leen xeeñee bëgg nañ nga bëril ko hmm. bu dee sax da jël ca ñeex ma may leen booleeg mburu ngir xëñ ngam leen di xëñ te mënuñ caa ñam hmm. mën naa nekk xaq hmm. wax yiw yiw yi nag bari nañ jotale waxi yàlla ko yonantam yiw la jàngal jullit yi yiw la digle mbaax fekk xam nga li ngay digle yiw la tere mbon te fekk xam nga Hmm. ni nga koy defee hmm. yiw la ndax hmm. yonent dafa ne qul haadihi sabili ad'u ila allahi ala basira nag la wax yéewénal diggante nit ñi yiw la wax nit ñi mbaax wa qulu linnaasi xusnan yiw la bokk na ci baat yi yiw yi gën wax dëgg koo xam ne ragal ko mën naa tax doo ko wax dëgg wala yaakaar ko mën naa tax duñ ko wax dëgg nga wax ko dëgg te yàlla rek tax hmm. kooku yiw la hmm. kon képp ku gëm yonent hmm. képp ku gëm yàlla ku bés bañ na wax yiw waa mu noppi na teral ganam te na teral dëkkandoom te it teral eh, ganam am nañu yàlla boole ci way gëm yàlla yi boole ci way gëm bés bañ booleñ ci ñiy jëfee jëfinu ku gëm yàlla gëm bés binc hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin mm-hmm. ala alihi wa sahbihi wa sallam amin baax na